al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi nuyoo tey ziar di ko tekki loxol sëriñ xaadim ak sëriñ xabaan yàlla na yàlla nangu ñaan yépp te yàlla na ko yàlla boole mbokk mi laaj atteeb jàng bismillahi rahmaani rahim ci julli ci mazhab malik bii de li ci mashhur di ci raajix mooy bismillahi rahmaani rahim dañ koo sib ci jullik farata waaye nag dagan na ci nafila donte nag am na benn benn ci ngër mi ñoo xam ne dañ doon ay borom xam-xam ne mi lañ dañ doon jàng bismillahi rahmaani rahim waaye lii mashhur di ci ngër mi moom mooy bismillahi rahmaani rahim yi dañ koo sib ci jullik farata wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax ku bëgg a woor koorgu nafila fàtte ko yéene ba fajar jot ndax dana ko mënatee def waaw ci masa bu Malik koorug farata ak koorug naafi la faw yéene ji daa war a jiitu fajar mbaa mu ànd waaye bu fajar xasa jot te yéene goo ci mazhab bi mënatoo ndax charte la ci wérug kor yéene ju jiitu fajar mbaa mu ànd ak moom wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na xam ne dafa génn man yi ba farata war ko waaye moom moom wéra di ko dal goo xam ne su duggee ci woon day sikki sàkk rek mën na fa def ñaari waxtu muy sàkku ak labiré waaw kooku de lañ koy labiré mooy mu xam ne jax-jaxe mbirum seytaane la ñaare li ci musul daal mooy mu jëlale ko loolu la ko lislaam sant ku mel noonu lépp lu muy sikk sàkk bu mu ko fale buy sikk sàkk raxas naag fii ak raxasu ko na jàpp ne raxas na ko mu jeex te mu bari lu muy tudd yàlla kem kattanam yàlla mën na ko musal ci loolu wallahu taala alam mbokk mi laaj bëgg giñ bëgg jàng suuratul kahfi bi su àjjuma ndax nee bu jant bi sooyee alxames sa ndax man si na koo def wala déet waaw suuratul kahfi bi ko jàng dee guddik àjjuma ak bëccëg gi lañ ko santaane fu ñu ko fi jàng bu jant bi sooyee àjjuma tàmbale na la ba guddi gépp dañu xëy muy guddi subak àjjuma ba jant ba timis fekk jant bi soogul rek kuñ ko fi jàng rek baax na wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ndax ku bind alquran sart nañ ca mu yor am jàpp waaw ku bind alquran moo ko koy laal yépp dañ cee sart mu jàpp lu dul ab dongab daara akub sëñ daara ñi nga xam dañuy jon jog alxuraan lu bari ci waxtu ñu ci nekkee moom eh, may nañ leen ñu yor ko wala ñu di ko bind te fekk laaw ay ku dul ñooñu rek dañuy charte bala nga koo laal wala bala nga koo bind mais nga jàpp wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku dénk woy juróom wu jigéen alal mu lekk ko ndax loolu riba la wala du riba waaw bu fekkee ne day moom moo war a yor woy juróom bu fekkee ne lam ko war a defal defu ko ci loolu la ko way jur def ba dara du ko ci fekk ndax moo ko war a dundal bu fekkee ne boroom këram nekk fa moom doomam moo ko war a dundal bu fekkee nag ne dundalu ko ba tax la mu war a dundee la mu ko denk mu jël ko dara nekku ci bu fekkee nag la mu ko war a jox lépp lépp mi ngi ko koy jox dénk ko alal mu daal di koy jëfandikoo nag ci lu yoon loola du jaaduwut ndax loola eh, wor la te jullit du wor wallahu taala ahlam mbokk mi laaj koo xam ne dafa nekk ak yaayam waaye moom waa ji nag baayam génn àdduna kon yaayam la nekkal yaayam nag baayam ngi dund ne bu ñu waree may yaayam kan moo gën a yee ci maye doom ji wala baayam jigéen bu amee doom doom ja màggee mat mooy kilifaam doom ji moo gën a yee ci maye mooy kilifa gi ku gën a jege ci maye yaayam wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ilimaan ju doon ba siggi nee di rukkoo dem bay rukkoo ñu sabbal ko mu wéy sujjóot ndax julli googu am na lu ci war bu fekkee daa juum nara rukkoo ñaari yoon bu fekkee ne jëmmi rukkoo ba am na ba mu téye ci bëtiwam ba dal nga xam ji am na boobaa dolli la kon rakkaa bi rukkoo na ci ñaari yoon kon yokk na loo xam ne day waral sujjóot ba'da salaam ma fekke dañ ko seen muy sëg rek eh, jotuta dal daal di wéy su joot boobaa nag dara nekku ci dara waru ko wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku la ameel bor ne la fi ñett ñetti fan la fay toog fukki fan ak juróom la ndax sañ nga koo jébaane moom lay leb ci sutura la waaye ginnaaw nangu fay ndax sañ nga koo jébaane wax nañu ne kii damaa fayu moom bu fekkee ne jébaane ga am na ci njëriñ day gannaaw moo waxoon te defu ko fekkee ne bu jàpp na ne bu ko jéebaa ne mu fay ko sañ na ko ndax moo ko ameel te fay ko ndax sañ na ko yóbbu ci yoon ne dama ameel te fayu te loolu xeetu jéebaane la kon bu fekkee ne nag euh, la waxoon defu ko waaye bu waxee ay nit wax ko nit ñi xëy na mu fay ko su moom euh, sañ na ko wax waaye su ma nee fexe ba mu fay ko nag ci suutura loolu mooy li gën moom bu ko leeree ne ci anam googu dong la mën a fayoo te it du ko ci xasaare du ci wax du ci boole lu ci bokkut euh, su booba dara nekku ci wallahu taala alam mbokk mi laaj luy àtteb léttu ci góor léttu de bu fekkee ne aajo la te di luñ baaxoo def ci barab ba dagan na sax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana létt kawaram ñeenti létt ndax kawar gudd la yoroon koo xam dafa yor kawar gudd koo xam ne ci masalan bu doon liggéey bu ko lettut mën na koo lëjal bu baa lettu dana dagan ci moom bu fekkee ne foofam nekk it aada bu fekkee nag ci misaal fii senegal nga xam ne ñi fi baaxoo lettu mooy jigéen ñi jigéen ñi lañ xami lett su boobaa nag du jaadu ci góor mu ko fi def ndax nur nur lu ñeneen la loolu dañ koy tere ab jullit dañuy tere góor guy nur nur lu jigéen di tere jigéen juy nur nur góor lépp loo xam ne aaday jigéen a ci barab bi góor ñi dañ ko war a bàyyi lépp loo xam ne aday góor nañu jigéen ñi dañ a bàyyi léttu nag fii ci Sénégal aaday jigéen la kon góor waru koo def wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa weesu ñeenti soxna yor fukki soxna nee na bu faatoo buñ koy miraas nan lañ koy miraase waaw li ñu xam ci charia de mooy ñeenti soxna la ab jullit war a yor dañuy wax ne boo xasee weesu ñeent keneen koo fasaat fasuwut kon du soxna bu faatu woon ni du ko doon wala boog waru koo doon bu fekkee ne xamu ko li mu def xamu ñàkk xam ma tax mu def ko nag doom yem ci am moom danañ doon waaye moom soxna si moom du soxna doom yi nag dañu ni jàppee doom yi ñoo xam ne dañoo judd ci lënt boobaa dañu leen yéegal ci seen baay waaye moom soxna si doon wallahu taala alam mbokk mi laaj ku doon julli am ñaari rakka taay ba noppi tàmbalee sëlmal fàttaliku ne fàttaliku ne julli gi matut mu jóg àggale ko luy atteem eh, mel na bi mu tàmbalee sëlmal rek kon jàpp na ne julli gi man na kon yée amoon na yéenay génn ci julli gi kon génn googu génn ci julli gi ba tàmbalee sëlmal tàmbalee wax ak dolli la kon su ko fàttaliku baagale bu sëlmalee na sujjóot ba'da salaam wallahu taala alam mbokk mi laaj ban xidma la sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu jublu ci woote màggalu 18 safar sëriñ bi day sant yàlla di santulu yàlla ak cant la xéewal gi yàlla wàcc ci moom tam sababoo ci nattu bi mu ko tegoon nattu bi tàmbalee woon dix-huit safar xéewal googu lay sant yàlla di ñaan ay ñoñam ak i soppeem ñu sant la ko ci yàlla wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na daa dégg ñu ne ñaari julit bu ñu meroo dëngoo bu ñu wooree duñ ko nangu buñ jullee duñ ko nangu waaw ñaari jullit yu dangoo ba duñ tuddante day lu ëpp ñetti fan dañ koy tere moom sax na ci xadis it ne yonent bi salaam wax ne guddig ni su saabaan fukki fan ak juróom ci barxu bu dikkee bi dana feeñu ay jaamam jéggal ñëpp ba mu des ñaar ab bokkaalekat ak ñaari julit yu noonoo nee moom du leen jéggal de wane ne ay jullit waruñoo noonu ba duñ tuddante kenn du nuyu sa morom ñàkk mën a jëflante nag mën naa am dem ba déggowu leen ci ay wax wala déggowu leen ci ay gisin waaye nag bu mu tee ku romb morom nuyu ko maslaa mi dox diggante jullit ak morom ma mën dox seen diggante doon ti jaxasoowu leen maa foñante kenn du tudd morom ma nag moom daganu ci ay jullit ñu def ku lu ëpp ñetti fan wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na kuy roy ci kuy wañ wàññi mu rawee ko benn benn rakka nu muy fayee la ca des ak luy atteb loolu waaw atteb eh, kuy matal di roy ci kuy wàññi de dañ ko sib ni ñu sibee kuy wàññi di roy ci ku matal kooku sax lañ gën a sib ndax day bàyyi sunnaam moom bii sib nañ ko ndax wuute yéene yi waaye su amoon Eh, ki jiite julli ñaar rakka sëlmal ci julli goo xam ne ñeent rakka la war a doon ndax mooy julli ñi wàññi bu ko rawee benn rakka bu day àggale jullik ilimaanam door a fay rakka bi bi ko imaam masalan tisbaar mu ñëw ànd ak ilimaan rakkam ñaareelu ilimaan ilimaan daal moom bu jógee day indi beneen rakka jàng ci faatiha kese nga xam moo waroon nekk ñetteelu ilimaan bu ilimaan ji doon matal boobu mooy doon ñetteelam bu daal di toog taaya moo ñaareelu rakkaam bu taaya ba noppi jóg andi beneen jàng ci fatiha kese ñeenteelu rakka ilimaan bu doon matal bu noppee taayawaat foofu ndax bu doon ilimaan doon matal dana fa toog taaya kon dafay toog taaya bu taaya ba noppi nag jógaat andi beneen rakka bu mu jàng fatiha ku saar mooy rakka bu njëkk bokk ilimaan raay woon mu daal koy fay door toog taaye nga xam ne kon mu julleem gi rakka bu ci nekk taaye na ci noonu lañ koy lay motti la julleem wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa am ku ko jël di ko jàngale loo alxuraan ne bu dikkee nag mu ne ndax bëgg nga ko ne ko waaw waaye fekk na nag bëggut jàngale alxuraan moom su bu amee leneen mu bàyyi ko waaye teewul nag lam ko sant ma ngi koy def kooku it ma ngi koy seet di contrôler njàng mi muy laaj ba xam lim ci fayeku ndax dana ko dagan ginnaaw daa wax ne bëgg na te bëggut waaw bu fekkee ne lañ ko sant ma ngi koy def de lañ ko fay dagan na waaye li wax nag ne bëgg na te bëggut loolu mu wax lu amut la ginnaaw leer na ko ne bëgg ko def métier leneen leneen na ko gënal wërtoona wax ne ko bëgg naa ko na ko wax rek mën naa ko waaw ab julit du wax lu amut rawatina koo xam ne day yëngu ci alxuraan loolu war na koo tuub te moytu di wax lu mel noonu Eh, bu fekkee nag lañ ko sant moom ma ngi koy def su boobu moom la mu ko la mu ko defee dagan wallahu taala alam mbokk mi laaj ne nag ku gis soxna soo xam ne da ko bëgg a takk soxna ndax mën naa taam mari di waxtaan ak moom ba ba koy takk ak diir boobu mu war a toll waxtaan woo xam ne du weesu jàmbur ak jàmbur de duñ wéet ci benn barab bi nag te it li gën moom nit ngoro lu gën a gaaw moo ci gën ngoro dis ko yàggal deesu ko yàggal deesu ko fisal kon te bu yàggee fis kon li gën mooy bëgg takk soxna na ñaan ñu may ko bu fekkee nag xëy na am na ngàntul mën a takk ci saasa it na xam ne takk gu ko kon du soxnaam kon yenn wax yi waru ko wax ak moom warut a wéet ak moom wallahu taala alam